baax na jërëjëf asalaamualeykum mbooloo mi maa ngi nuyu képp koo xam ne tey jii taxaw nga fii ci place de l'obélisque micro bi baaxul voilà aywa donc asalaamualeykum yéen ñi nga xam ne yéen teew ci place de l'obélisque tey jii ngir woote bii nga xam ni ba voilà donc mani maa ngi nuyu sénégalais ak sénégalais yëpp ñi nga xam ne tey jii taxaw nañ ci place de l'obélisque di jiital ci nuyo bi le président de la coalition Yewwi Askan Wi di ci teg également les autres coalitions la coalition wàllu bi nga xam ne ñoom lañu àndal ci xeex bi ñu war a xeex pour jëlee fi président Macky Sall ci élection législative yi mooy première manche bi war ko fee jëlee ci deuxième manche bi en 2024 ndaxte 2024 mënut a doon candidat fegal na te ku fegal da ngay jox sa wujjum aaye fukki weer ak juróom benn moo fi dese président Macky Sall ci Sénégal wiiri wiiri yi muy def yëpp du tax mu mën a nekk candidat 2024 2024 incha allah su dee bëgg na jàmm sax duñ fa àgg parce que bu dee élection législative yii nu jëm dafa bëgg a tere Yewwi Askan Wi mu bokk sur la liste nationale dañuy dox dox ci kaw président Macky sàll won ko ni réew mi moomu ko donn ko ci ay maamam donn ko ci ay mbokkam donn ko ci ay waajuram kon dañuy wax ni kenn mënula te Yewwi Askan Wi bokk ci élection législative képp ku bëgg def loolu mooy da ngaa bëgg a yee fitna ci réew mi te bu fekkee président Macky Sall fukki weer ak juróom-benn yi ko dese dafa ko dafa doyal da koo bëgg a maye su fekkee da koo bëgg a maye nañu ko wax ñu laaj ndigal ñu joxe ko du dox ci kaw régime loolu mooy dëgg kon su fekkente ni bëgg na jàmm su fekkente ni bëgg na jàmm fukki weer ak juróom-benn yi ko fi dese mu njiite ci dal. ñu bàyyi ko mu àggale mandam na bàyyi yeewi askan wi mu bokk ci élection législative tey jii may wax ak yéen ci la professeur Cheikh Omar Diagne nara fanaan 64e nuit au niveau de la prison ci jaay doole président Macky Sall libéré Cheikh Omar libéré Cheikh Omar libéré Cheikh Omar libéré Cheikh Omar libéré Cheikh Omar libéré Cheikh Omar merci xanaa may tëje di wax ni guleet li xew Sénégal nar fee xew ab élection législative boo xam ni partant yi dañ naan leen du ngeen dem waaye remplaçant yi ñoom ñooy dem wala ñu ni partant yi kese ñooy wala ñu ne remplaçant yi kese ñooy dem partant yi du ñu dem loolu président Macky Sall moo ko fi mos def parce que dafa tiit xam na ni la la l' intercoalition Yewwi Wi ak wàllu daf ko nar a ci cohabitation ñu jële fi assemblée nationale tappaleem bi loolu moo tax ñuy wax le ministre de l'intérieur ak ki nga xam ni ñiñ tuddee ñoom le sept sages ñoom ñoo nar a yee fitna ci Sénégal man nag damay wax Antoine Félix Diome Antoine Félix Diome Antoine ñàkk Diome damay damay jël rek benn caricature boo xam sama rakk Abba Mbaye bu taxawu Sénégal moo ko def ndaxte Abba dani moom Antoine Félix Diome sàppooti bu ñorul la te sàppooti bu ñorul dañ koy rënk si saaku ceeb ba mu ñor ñoom nag au lieu ñu rënk ko ci saaku ceeb ñu bàyyi ko muy lambar lambar ci dëkk bi ak di jaay doole ba nëpp léegi nag comme nëpp na dañ koy jël sànni ca àll ba kon nag nañu Antoine Diome abal naa dem naa dem naa dem naa dem naa dem naa deema deema dem naa dem naa dem na dema dema dem fi may daanele fi may daanele Cheikh Omar Diagne moom ma doon tudd sànq li tax ñu téye ko ci prison bi mooy ay góor jigéen ñoo toog ca France am ñu leen fi nekkal ci assemblée nationale bi bloqué la proposition de loi criminalisant l'homosexualité góor jigéen yi ni ko tëjal Cheikh Omar Diagne moom mu dem tëj ko moom président Macky Sall kon sénégalais yi comme assemblée nationale la ñu war a voté loi yi fa lañ voté fa la ñu war a la loi criminalisant l'homosexualité kon képp ko voté liste Benno Bokk Yaakaar ci élection législative yi yaa ngi dooleel góor jigéen képp ko voté liste benn bokk yaakaar ci élection législative yi nu jëm yaa ngi dooleel ngóor jigéen kon nañu ànd def wennu dang jële fi président Macky Sall la première marche mooy ñu réaliser un score inégalé ñu am une majorité à l'Assemblée nationale mu waajal nag moom demam 2024 ñu tegaat réew mi ci yoon ku bëgg a jàng-jàng ku bëgg lekk-lekk ku bëgg a faju faju ku bëgg a génn génn Sénégal nekk ci jàmm ndool gi ñuy ci àdduna bi daw